billahi sami ali min asheytan rajim ñoo ngi leen di nuyu ci bés bu màgg bi di fukki fan ak juróom ñett ci safar di leen ci màggal leen ci jox seen wàcc waaye leen sunu borom wàcce yéen sunu waajur yi nga xam ne yéen a toog sunu waajur ya tooge fa ngor tooge fa jom toog fa muñ waaye tooge fa barke ak kullale gu bat sëkk nag lu am fii ci àdduna ba di ko naw yéen la doom yëpp dañoo taxaw dañoo taxaw ci pegg waaye ku daanu sa ndey la ba nun de daanu wunu nun daanu wunu de ndax liggéeyal nga liggéey liggéeyal ngeen ñu liggéey boo xam ne moo ne téye ci pekk ba kenn daanuwul kon noo nga leen di sant te di leen ñaanal wala réew yi ngeen di dox at mu jot ñëw dina wettali ci liggéey bi yàlla yàgg te ak wér ak sutura ak sag ak sago ci barke Sëñ Basiru dañu wax ne teranga bët a tax alaaji mi moo kay rakam la ko tàmbale ci alaaji taalambu mi ba ci Ibrahima jaar kër Baye am ndéem samba kam kër Baye am di Moussa la ko dal ca Cheikh Sala ak Pape Samba sama pap kër Pape Assane Boub ñoom ñëpp ñu ngi koy teral sama ka papa Cheikh Dia la dala ci Youssou Tall ñoom ñëpp kazalika noonu rek lañ taxaw ak moom te nit loo ko ti defal te àndul ak yëg loolu day soofe waaye danañ jëf boole ko ànd ko yëg ak war ma ci mot lii nu ko defal nii ci teraanga gis ko wàcc seen bopp su jotoo ko laa mi son moom moo ko gënal lu nekk te loolu ci la xale yëpp nekk tàmbale ko ci taalam yi wër leen ñoom te tabaarakallaahu lii nag daaw daaw Bachirou mun na moo moo moo mos ah Bachirou Kolda moo ñëw grand boobu trois pièces ba mat bu ànd ak daami nag clip ko xaalis yëkkati ko jox ko alaaji mambal daaw laa wax de ak i dàll tamit mu jaaral fa mu jaaroon la nga jàppoon ba mel nii bu ko bàyyi ti jig na la yàlla na yokk rek bii ci des Mohamed Mbuup barki démb la ko indi dix mètres dix mètres jasneer dix mètres jasneer wala ko dàllam ñoo ne ko sama mag ko siyaare te nga ñaanal ma at mu jot ma man ko dana ko man de ndax fam ko jëme la xale yi daal ci CRS Alaaji Taala mi ak wala kër gii ni Cissé yal na leen yàlla màggal ku màggal ko war a màggal yàlla màggal la te damay dégg ñu naan bu fi baay nekkoon lii laay def sa baay ne léegi di sa taaw baay nekk fa defoo ko bu sa baay nekkoon tam doo ko def kon xale yi yal na leen yàlla màggal yal na leen yàlla teral yal na leen yàlla barkeel noo ngi ñaan ci barke maam yi nga xam ne ñooñu mel na te ñu tey tey ñu toog di leen liggéeyal barke mbuubeen yàlla na dal seen kaw li ñuy dox di ko wuti mu di teranga àdduna yal na leen wër ci barke Cheikhul Khadim a ah, suma diggante El Hadj Mame duma moom wax dara du ma dara dama leen di bàyyi yéen sunu ngeen ngeen seede ma ci ndax man nag lu ma am aw ci El Hadj lu ma am mel ko tey du El Hadj Balla de Samba Abdou Fati la seede nga ci lu bari de. moo ma yar moo ma teg ci yoon moo ma xamal lu bari ci àdduna ko mun na ma ko fay soo gisee mal bàlla bi ma ne ko ñàpputee loo rek la waaye moom tamit lu ma ko jàpp delloo na ma ko kon maa ngi ñaan ci barke Cheikh Amadou Bassir ak sunu waajur yu baax ya noonu àndoon ba am nga demal sëñ Bassir ànd boobu yàlla ko yàlla sotti si ñun ba lépp lu ñu yaakaar bëgg ko ci njaboot gi sunu borom til ko asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu. waaw ah, salaamaaleykum mbokk yi wax après du day xaw a métti mais nag man mag laa te fekk naa lépp. ak sama Ibra yàlla moo leen jàppale ba nga xam ne ak njabootam dañu ànd xamee woo doo xamee woo doomu maam Ibra mi fa fàtti xamoo doo xamee woo samo maam maam ñoom ñëpp benn lañ ah su ma su ma bàyyi nag moom moo féete woon sama sama nijaay Abdou sama sama baay Seex ci boppam moo féete woon sama nijaay Abdou benn waaw rek ma ngi rek quoi ah, sama baay Seex Mbay féete woo sama jaay Balla Mbuub ah ma leen xamal ne sama nijaay Abdou moom kilifteef la amoon moom ku mu xool rek mooy mooy sama nijaay Balla ku sama nijaay Balla xoolu ko sama nijaay am di aussi moo ay kilifam yëpp mooy sama nijaay Abdou ak sama nijaay Balla ak sama ñu yar nag seeni seen doom yar na bu baax a baax mais nag yéen mii yéen a ko ci dimbale parce que sama yaay ab lu mu bëgg bëgg ak sama yaay bale lu ñu bëgg bëgg ak sama yaay seex lu ñu bëgg bëgg àndu leen ci du dox kon na xale yi tey bu ñu àndee ginnaaw yàlla ak yonent beeg Sëriñ Tuubaa yéen mii la ma ne li ma leen xamee woon ba tey laa leen xamee te man nag mag laa du ma xale de li ma leen xamee woon ba tey loolu laa leen xamee yal na yàlla defal jàmm yal na yàlla defal sutura yal na dolli xew yi bu baax a baax a baax xëy na dañu mën a mel parce que su ma yaay bëggee loolu ay soxnaam bëgg ko lay dem rek day am mais su ma yaay bëggee soxna ay soxnaam bëgg ko ah déet da ngay waaroo de du sotti de kon nag ñu leen di gërëm bu baax a baax di leen sant bu baax a baax yal na mi am fay yal na yàlla fay man nag euh, ab jaam rek laa rek te lu ma leen ñaanal dana dal man ab jaam laa seen jaam laa te lu ma leen ñaanal billahi taalaahi wallahi dana leen dal kon nag gërëm naa leen bu baax a baax baax sant naa leen bu baax ba yàlla mi am fa yàlla fay taala jërëjëf taala jërëjëf li nga toppee su mag jërëjëf ñu ngi sant bu baax a baax di bu baax baax yàlla mi am fa yàlla yàlla fay yàlla na fi yàlla def na fi yàlla def sutura xale daal bu ñu àndee yéen mii la billahi wala kay xale yi bu àndee mii yéen mii la parce que mën ko yàq bu rek kon nag ñu leen di gërëm bu baax a baax di la sant kenn du xamee fi soxna sama nijaay kenn xamu ko fi soo ñëwee doo ko xam sama nijaay sama am ni kenn du ko xam soxnaam kenn mënu ko xam su su ma yàbbal aussi même chose kon na gërëm nañ leen bu baax a baax yonent yàlla bi am fa yàlla na yàlla fay jaajëf yàlla defal jàmm rek ñu ñu fi ñëw rek xale yi nag gërëm naa leen bu baax a baax sant naa leen bu baax a baax kii saa bu ma ñëwee rek jox na ma mbubu pourtant mën na ko mën na ko ci bañ a fekk saa bu ma ñëwee rek ne salaamaaleykum jox na ma mbubu dama koy sonal nag fu ma toll dama koy wax ne ah Balla mu ne ah maa ngi ñëw sama njaboot de koor gi commencé na léeg-léeg koor gi commencé te amagu amagu ma ci léegi nag mooy jox rek wala mu ñëw mu ne ma xaaral du te mu envoyé ma affaire bi jërëjëf def yàlla na yàlla fay yàlla na yàlla dolli xéwal bu baax a baax sant naa bu baax a baax vraiment kontaan nañ kontaan ah ah ah billaay barke billaay barke su ma ko may ma yóbbu acca bisimilah su ma ko may yóbbu ma ne acca bisimilah kaddu gi bala daf leen a siyaare bala ko xeeb ko ndax lu mu leen defar a ko ndax yéen ñu ko Sidi waxee rek bu ngeen lépp yàqu. waaye njaboot ci bu defaroo yéen a ko defar yan nañu yàlla fayal ah enveloppe ah, bi fukki junne ak ñaar ci nekk alaaji balaa leen ko siyaare maa ci teg lii te barkeelu ko ci yéen te ñaan ngeen yaa ñaanañu rek yàlla yokk ñu ñu yàgg teew ci bara bi yàgg leen a wéttili jërë ngeen jëf aji wul Sidi Mbaye Sidi Mbaye ah aji nee na moom d'accord waaw kay alaaji ci poos ñun balaa ñoo wax ak euh, alaaji Balla mi dañuy sant sunu mag ja ba pare muy Ndikku Mbay maa ko fekk ci kër maa ko fekk ci kër mu yaatal ma lool ndi ko amul problème àddina ma wàcc ca Gosaas balla mi di xale bu tuuti waaw ca Gosaas la wàcc ndi ku yaatal ma lool mbay daray àddinaam ndi ko bëgg ko maak coro mi coro fekk si ma yàlla jubale ñu nag maa fekk si nugu baay ki yàlla damaa jubale ko moom muy sama xarit ma wàcce ko mais premier njëkkeem mu nangu ko lool nag ndiku day dem marché ba ñëw dugg ceebu jënam maag coro jee bi ñu ne ko ndikul te changé ko waaye bëgguñu ceebu jën mu ne naa ko changé def ko ñaari cin loolu kan moo ko ñeme la ñu wax rek lay def ñu fayeeku ko pension ndiku may fayee ko ñu jël suñ pension denc lépp pension mu jox ñu te duñu fayee ko du dañu xotti ñu ñëpp ñu jël ay yéreem di ko sol bu tilimee ñu wekkal ko ca ligne nga jël suñu yére sol te du ŋaang kon balaa ñëw wax ak Balla mu ndaw mi wax ak ni yaayam ba pare yaayam moo baax yaayam moo baax. billaahi du ma ko feneen mu nga ci àllax yàlla moom yaayam moo maa ko fekk si parce que sëñ Bamba maa ko fekk si yaayam moo baax kii ñëw fekk si ma ca kër ga def ma xarit may njëkkeem wàcce ko may premier njëkkeem ñu taaluñ tuddee ma ko. mu jël faama ma bokkal ndey baay def ko ndey jël isa def xarit kon kii ragalu ma ndax maa ngi Issa bokk ndey ak baay faaba kon nag bu jëlee ñooñu def ndi xarit jël Issa def doomi de ragaluma ñu dem ci bàll mu àllaaji bàll mi kii ba may ñëw xale bu tuuti la ma sëy soko saas bu fekk ma fa àllaaji bàll yow gengente woog sarak yi dara keroog ba nga yóbbu sa yaay da ngaa ñëw ca saal ba jooy maa ngi def loo xam ne lu ma tiis la tàggalee nag sama yaay nga duma dafa ne la yaa ngi toog waaye nag lépp lu ma daan def ci sama kër baay gii gi billaahi duma ko sensé duma ko bàyyi bala la ñëw Touba gi tabax bâtiment ba muy juróomi néeg buñ fayoo ko mën a jël leen def ci kër gi te am ne wu maa fa ne ñu jël di jëfee ceeb bi jënd diw di di dunde xam nga kañ la ko xale yi delloo bi mu retraité ñu ne ko naa léegi da ngaa nag xale yi nañ la ko delloo léegi nag di ko dimbali ko mu bañ ñoom borom force jox ko ñuy ñaanal ab Abdou Fati bala engagé lépp dana jënd xar dana jënd boisson mooy fay kaamir mooy def lépp ma woo xale yi ne leen bala seen mag la waaye bu mu leen ci ëpp tiyaabu laal leen ci tuuti yéen tam mu leen nangu bala def lépp ñu ne ñu xale yi d'accord ànd ak man may na xale bu jigéen bu ne danaa ko sas xale bu góor bu ne danaa ko ngeen def laax bi balla def li ci des waaye teewul lu manqué ma ne balla jëndal bu jënd daf may jox ca ab Diop ma ànd ak coro yi mi lu ma neex lay jël bu dikkee du contrôler xam nga lu muy laaj facture ndaa di fay yal na yàlla guddal soo fan waat naa ko ci rasulullah doo dajeeg sa baay yu ma xëy am gàcc sa baay la mu war a def nga ko kon nag dootuñu la gërëm dañ lay ñaanal gudd fan gu ànd ak wér ak mboolim see rakk nag xam nga lii Ameth ak Bassirou def baat naa ko ci Rasulullaay fii laa ko yëgi yëguma ko yëguma ko Ameth moom billaahi wallaahi yëguma ko Ameth di koy sëñ sa Mbàkke def borom noppeeg jëf moom day def te du ci wax billaahi wallaahi taala kenn yëguma ko barke sëñ Ba waaye yow nag mbuub dañ laa fay kenn lebalu la yaa ko ñëkke jërëjëf mbuub ñu dem ci taala seen mag yi bëgg leen lool sëwru mu ci njokk jóg bëgg see bàyyi lool bëgg xale yi lool bëgg borom lool nag doo def loo xam ne woo ko téléphone wax billaahi wallaahi taala ñu ngi lay ñaanal nga sa baay ba fan te dese barke bi te yàlla guddal seen fan ñoo na duudu ñoo la jur teral nga nu bëgg nga nu yow duudu bu ñu demee xew bu ñu def boo ñu gisul dag nuy wër ci nit ñi ba gis ñu ñëw jox ci rajo ne ko yaak sama yaay na koy xam nga loolu la bokk mënoon nañoo ñibbi ta duñ la gis jërëjëf Mbow kontaan nañu barki dem ba rek moo ci moo ci lu xewoon jàkkee murit waaw barki dem ba rek da ñoo war a wër ci biir nit ñi ma seen nga ñurox ci biir nit ñi génn xaalis bëri na ko coro jee yaag sama yaay na koy seet jërëjëf jëf kontaan nañ ci yéen seen xol seet la koy dem siise sunu suma sama sama siise mii mooy jàpp ju taa bàyyi ba mu jàppee ba tey bàyyiwut siise mënoon nga noo bàyyi bu yàgg ndax yëf yi yàgg na waaye yaa ngi ma may audio mu may téléphoné mu ngi may seet bu ma lay xale yàlla na yàlla yokk yàlla guddal fan yi yàlla yëral cër ko teewaat yu bari barke borom Touba jërëjëf Mbour. man mun naa ma del wax ca kaw kenn du xam ngay wax waaw man seex laa yow tënkkat sama nga. ala alaaji maa ngi leen nuyu yéen ñëpp nuyu seen mag yi Sidi Mbaye ah noonu la ma yàlla binde nag mënuma wax ci kaw noonu la ma yàlla binde lu rafet rek nga fi wax. ndax doom yëkk ak doom ba lu suur doomi ndey la ñaa ñi bokk ndey ak doom doomu ndey la kon ñii daanaka yéen a bokk ndey yaa ngi ñii ndax alaaji bàlla rek ak sa yaay a bokk ndey ak bàyyi man nag damay sant yàlla di julli sant bi sant sama ñaari waajur xam tax ma sant leen dañ maa booleeg Abdou muy sama mag may sangam ma dindi sang moom mooy sama sang ndax mooy sama borom kër mu ndi ma ca kër ga ma fekk fa ñiin aji ndiku mbay ak aji ñoom ñoo su ma leen di wax wallaahi su ma fa déggee maam rek ñoom ñaar la suñ ma xatanoon ma ñibbi ndax moom fay ñëw maa ngi ak sama ñetti doom indi ma leen na ña ngi seen kër baay waaye suñ ma xataloon rek ma daw dellu. ndax ku ne xam ne ni Abdou borom fulla la kon yii laay gërëm ni ku mbay sama jaam la waaye moom sama sangu yaay la ñoom ñépp ñu yaatal ma ndi kumbay xamul dara bu fekkee yàlla rek dëgg rek la bëgg pour dee dañ lay ber xamul dara dara dara dara xam nga lu mu xam loo ko wax loo ko waxul xamu ko boo ko ne defal mu def boo ko ne bàyyil mu bàyyi li noo koy sekk wax mu xam mënuma cee teg dara ndax loolu rek laa fa fekk loolu laa continuer ñoom ndax ah, ndab la jiitu bu jubee bu ñëw day yéeg bu rëng-rëngee ku ñëw rëng-rëngi ndi ku mbayee rëng-rëngiwul yàlla na xippee firdaws ca am nañ ci nag yaakaar ndax bu fekkee ni moom doomi seex la ca am na ngor am na lislaam ca du naafiq am nañ ci moom yaakaar barke sëñ te mu ragal lool nag kii nag sama xarit yàlla nu jubale ba Abdou ñëwee Ndakaaru daf ma ne ñaar ñaara fa ne ma ne ko ne ma danga fa fekk koo xam danga mën a ànd ndax ay doxkat ngeen yéen a bokk jukko na ko ngi loolu na Abdou bañ demee Kolda ba nit ke ñëw di laaj ne ma madame Mbuub laay laaj dañu seetu ndiku mbay nogoy wala coro ñaar doxkat yi la waaw ndax ndax ni ku du dox ñaari doxkat yi kenn la ci seet mus <laughs> nañoo génne di ñu toog ca mbedd ma ca mbedd ma ñu toog mu ne du ma ubbi buntu kër gi waaw sa sa génne nañu ma ak kii danoo wayaani woon <laughs> booba asalem lañ demoon wayaani ñu ñëw mu fekk te daan soxoo ubbi buntu kër gi daan soxoo ndi ku may ne ab leen ubbi rek ñu dugg mun ko ay eh, demal toog fee duñ dugg sama kër tey daa soxoo dem nangu caabi ji ubbil ñuy dugg Abdou génne na ñu ñaar ndax mën a dox. ma ñëw nag ci sama taaw bii sawru mi ci njokk borom saaku ceeb yi borom 20 litres dëw yi borom goroosu suukar yi borom ambaloog yi. Balla yow yaa ma njëkk a jox néeg bu dul senn wax naa la ko ca kër yaa ma njëkk jox néeg bu dul senn. kon ku ma jox néeg rek yow ci law la ko royee su ma doom joxee néeg rek yow ma càmmiñ joxe néeg yow yaa ci njëkk fu ma nee nga fekk ma fa bala doo def lu ma yogut doo wax lu ma yëgut boo ñëw da nga woo téléphone bàjjen nangam man la nangam nangam ba ki démb su ma la digee leen nga def loo naru woon sax su ma la ko sante nga def ko su ma la nga ne ah ndax ma def ko ndax yow yaa ngi maa ngi kuy feneen ni du ko fekke gis nga bas Mbàkke lii mu la defal su ma señoon da defalu ko raw ndax li ma lebal bal euh, ba fayulagul da lay avancé yàlla na la fay te yàlla na ko mën a fay sax ma leen sant yéen ñëpp nag sikkuma kenn ma walbatiku nag sama genn wàll mi kii kii kër ba mu jógee ndar Abdou Fati saagam ba sama néeg la ko jox ne ko demal toog sa bàjjen bu tëddee sama lal bu ndaw bi ma tëdd ci bu mag bu ñuy waxtaan. yàllaa nu jubali dégg nga su ma ayee mu di ma rootali naa ma man sax meer coro xaw tax ngay toog kaw la <laughs> ndax waroo dëkk Dakar di root fooy fooy dem di root ci teen yi xam nga loolu mu saf ma loolu mbub jaal nga bëgg bas Mbàkke loolu ba ma xam ko bal kii rootal na ma tuural na ma ndox te teenu kër war xa jaañ bala ma daan rootali te man boo xamu ne ñu jukkee te bëgg na maa seey ak Abdou ne naa toog rek muñ di root rek ci teen yi jaal yàgg seen sag mag gii sant naa leen gërëm naa leen sikkuma leen nag ma dem nag ci Assane sama waa ji Assane du wax ak yaay man lay waxal lu mu doon rek maa ko yëgal na koy mi ngi nii maa ngi kuy feneen ni du ko fekke lu muy yëg ci Assane maa koy wax lu ko naqari ci Assane maa koy xam lu ko naq neex ci Assane man la bu ñëwoon sama kër lu ma jox rek ma ko teppee mu faj soxla xam ne nag bàjjanam bàyyi ma ko teppee xot ubbi lem man cee rek la maa son jox ma man koo fajee sama loxo ma dem nag ci boroom noppeeg jëf du koy sëñ Cheikh Mbacke bu doon moom ki lii boo ko joxee kenn du ko yëg kon ñun kon du ko fekk doo ko sax pour kii yëg day ñëw sama kër ga di waxtaan ak man di ma jox wër sëggam su ma feebaree su ne suñ ko nekkar rek mu ne ndax eh, eh, borom pharmacie xam nu mu tuuti ndax am na wéef ndax misaal am na wéef nee mu jox la garab bi ca du ko fayu bas du ko fayu bàyyi badu ca mënoon na ñoo ñoo ngi liggéey kon nañ sant naa ñëpp gërëm naa leen xam nañ rek xam nga ni loo ko jox mu jommal ko mooy sama njuuma du sunu njuuma de kon fekk teral na yàlla boo ñàkk teraanga dama bal dem ne ko duudi mi lu mel ne la lay wax sa te du la jëw te du la xas da wax lu baax sa gannaaw ak sa kanam du bàyyi ba ngeen toog nii mu di la jëw mu di la gërëm lim lay ñaanal yal na ngeen ko bokk yéen ak seeni rak ak doomi jul yépp ngeen baal màq nag lu ci manqué rek ci man la damay sëtub seex te kii pa maamam da daan tëgg tama moo tax. ki kay maamam da daan woyaat. waaw baax na. man daal naa ñoom dañ may si ci waaye nee naa leen ku ma lakk ma xëñ rabu. ku ma lakk rek ma xëñ ah, ah, ah, maa ngi leen di nuyu yaag Doudou Camara sa taw baay bi maa ngi leen di nuyu di leen gërëm ak sarak ju góor jee maa ngi leen di gërëm di leen sant mën nag samay wax du ci bari ndax yow sa yaay rek laa fekk ci kër ak yaayam ndiku mbay laa fekk ci kër ak ami sekk ma jóge njaareem nag sëy si am fukki at ak ñett ñu di ma jàppale lool man ñoom ñaar laa fekk ci kër ak Bintu Gueye ñu di ma jàppale lool nag su ma ayee ñu di ma yokkal di ma sabatil di ma defal lépp ndax kër gu mag la woon te mënuma ko ma di leen ci sant yàlla nañu xëppee àjjana yàlla na xëppee àjjana Abdou Faty nag jàpp ma comme ku ma bokkal ndey baay Abdou Faty keroog ba am di vacances dana ma fekk ma ca banque ba toujours ma lay jox dépense te booba jaboot naa lool tubaar fakàlla macha allah sama njaboot maa ko gudd mu ma dee ma fekk ci banque ba booba ma kol Kolda saa yoo loo xamee ne weer wi dee na rek boo ma fekkee soo ñëwee ma jox la dépense ma dem mu di ma jox dépense may togg ba samay doom gën a màgg ba samay doom gën a màgg ma dem sama kër baay Samba jël si kon man damay sant Abdou faati ak Alaaji Balla sa baay moo ma jël si woon njaareem ak bàyyub kii Alaaji Balla ak Seex Tuut ñoo ma jël si woon njaareem ñoo ngente nagoy mbuum njaareem ñoo ngente seex si la kon man aw ma dara lu may wax ci yéen xanaa sant leen maa ngi leen di sant bu baax nag barke Serigne Touba kër sëñ Mountakha gee ma doon toggee Balla mee tax ma jóge fi waaye man soxna Balla laa daan toggal daan ak ñoom day mbuub am sama daayira waaye ball mii moo tax ma jóge fa ak yéen ñii ndax Abdou Faty mënu ma ko fayee leen lu toog ci waañu bi ba dee képp keroog bi ma daanoo ñu yóbbu ma hôpital dama ne man de li ma bëgg wér ci màggal gi rek dem màggali waaye maa ngi sant yàlla bu baax di sant yàlla di sant yonent bi ak Serigne baax di sant nag sama Serigne bu baax ba jàppale woon na ma lool am di jàppale woon na ma jàppale sama njaboot barke Serigne Touba am di bëggoon na ma ba fa bëgg yem jàppale ma. maa ngi koy sant bu baax yal na xippi àjjana yal na xippi àjjana taale mii nag di ñëw di vacances su vacances kër baayam ñëw kër am di ndax am di daa gënoon a lewat féeteeg man nag may ñaan bu jaar yal na yàlla guddal saw fan nga topp ci sa mag ji rek ba ba yàlla defal leen ngeen màggat ba seenu njaboot màgg di sant nag Fatou Seck mi ma fekk si woon Fatou Seck amul wex man ma wexoon waaye sama wex-wex bëgg lu baax man maa wexoon waaye maa bëggoon lu baax di ànd ak moom nag lu ma wex ak lu ma ko wax rek mu ne ma loolu baax na faal su ma meree sax mu fekk ma sama néeg génn ma jëkk su ma meree am di mu ñëw di ma digal kon maa ngi lay sant Seck tàggale woo ma ak sa njaboot nag Seex si lay taw rek bala topp ci ñu ngi ci jàmm ak salaam àddina nag matalewul lépp waaye lu amul tey bu ëllëgee dana am. yal na leen yàlla defal jàmm ak xéewal ci doole yu sëñ Touba fii nag laa ko yemale ndax man damaa ne ca waañ wa yal na yàlla def jàmm. daa di toog bu ci yàgg am di ne ciim man safu leen ma balaa ëllëg ñu ànd kat. lu ne danañ ko waxante waaye bu ëllëgee ñu ànd <laughs> li nga wax rek laa la bëgg a dëgal Masamba jaar ba tóor billaay walaay taala waaye na naqari woon nga dara waaye neex ngaa dëgal lu ma ko wax nañu daal di ànd même suñu télé ba sax bañ fa demee dina ko ji ba ba ma la digalee da ngaa nangu. <laughs> nangu ji ko. <laughs> ah Abdou Fatim ne ah, ko joxoo ko Alaaji Balla seen wujj nga ko jox seen wujj nga ko jox nañ koy jëli <laughs> mu jaar yàlla nga waaw waaw laay ndeysaan kon ma asalaamaaleykum asalaamaaleykum ah ñuy sant rek ak di gërëm nag naa bañ santee yàlla lu ci yonent bu tedd bi salallaahu taala wa salaam ngi gërëm suñuy waajur di gërëm nag seen baay ndax lu ñu am ci ëtt rek yàlla ak seen baay la ndax jigéen moom jigéen rek la mosu ñoo topp ci dara barki sëñ Tuubaa Mbàkke kon boog bu ñu toogee ba toog nii sant yàlla sant leen yàlla na xippee àjjana ñoom ñëpp barke yonent bu tedd bi ma ko njëkkee nag ci duudi mi nga xam ne mooy taaw kii kenoo ba njëkkee dase euh, daje go Eh, wallaay buub jaal waaye booba tey dara ñaawul sa yaay ju baax ji moom i jiite ñu amit sekk lu ma sa bëgg rek bëgg na ko bëggul woon dara xanaa ñun rek kon loolu ñoom it yàlla nañ xippee àjjana ma dem nag ca taala mais taala dama ànd ak am di dem ndar ma ngi ne ñu dem ba ca pomba ma gis ñaari xale di daw di topp oto di daw rek di daw rek am di dawal di daw rek ma ne ko am di ñu de ñaari xale yee dama yaakaar ne oto bi la ñuy topp am di daal di taxaw freiné muy taala ak sarak ak masamba mu daan na ah ñi sama kër lañ di ah lu taala bu ñeen moom ne dañoo jàngi woon daara loolu yàgg na ca Ndar boobu ñu ngi dem sa kër sa kër yaay dañoo ñëw ba ca Pomba jàdd wuti eh, sapeur pompier ya ya yéen a ñëwoon kër ga nga xam ne loolu dëgg la mbuub jaal nga ñëw nag di fa vacances bu ñu saana wàcc luuma mën ne nday màgget dama dootal taal siwo ndox mu sangu nday màgget dugal siwo ba ci biir ruus ba mu ne ah tante man dama sangoo siwo de mu ne ko lay sango mu ne beñuwaar beñuwaar boobu amuñu sas di <laughs> beñuwaar <laughs> mu ne ko duyal ko beñuwaar gi mu sangu doomi ndar la oh. daal dugg ci sangu ba set sori mu ci jàpp jot te dara mës ta ñaaw may dëggal nag nogoy mii nag li mu wax ci ndiku mbay yal na xippee àjjana ñoo ñoo fekk ko saas di boot sama taaw ma ñoo yegg si teg sama walis ngoon jot ma sangu ba set sang sama doom yottu sama yére nogay mii na ma looy sol ma ne a ah sama yére yi doo dem ca bataan di ko may mais sol ca yére ya ah man de moom laay sol denc say yére ma ne ko ma ngi nii ah nga dañuy wax lépp seeda am dafa neex mm-hmm. ma ne ko yow ah, ah man ah ma ne ko yow ma doo sol say yére mun ne ma déedéet yére di ko may yi laay sol waaye dama koy dëggal ma daa na ko ne may te noonu laay def. daal jël sama yére denc daal di dem ca bataan ni ko may ma ma nga tëdd moom yëgatul tegul daf cee na ma ah wat seek la na mën na ko ubbi ci yére yi sol mu naa ah, solo ñu daal di sol te kat dañu sol ba mu tilim li na koy wax sànni ca euh, kii ba baaj ba teen ba teen ba ca suuf am nga ca kaw lañ daan ne su daal di sànni yére yi jógee daal na mbaa la xaasu mbaa la xaasum loolu yàgg na de mi daan ma seetal ma sama yére yooyu ca suuf ma ci moom rek nga ñëw fóotal ma du na ko tilimal du na ko lii war nga koo fóot dara day jël rek fóotaat ba mu set delloowaat ca armoire ba mbay àll kuma yàlla na xippee àjjana moom it ku baax la tobootoo ñu nag mbay àll kuma bu ñu meree mu mer jiital ñu rek ñu doon benn yàlla na xippee àjjana ak suñu borom kër yaa ñëpp waaw ñëpp rek mbulim kum fa nekkal ma ñëw nag ci alaaji mambaale ñu mbur jaar yow tubaarkalla macha allah yemale woo ko ci euh, waa kër Abdou Fatim alaaji Balla dafa am dafa am doom ah ma daal di ñëw ko Balla ma ne ma na ko ah ah, ah waaw a ah, ma lox loolu de daan ma ne ko Balla ma ne ma ne ko alaaji Balla dafa am doom mu ne a ah, mu ne ndey faatu mu daal di mu daal di ne ma ma ne mu ne ma anamu anamu ma ne ko ah moom da dafa wuti xar dem na ma nga ma nga mu ne bu ñëwee na ma wuy si te suba la ngénte li suba la ngénte li ma fàtte ko di daw rek fàtte naa lu ca jëm te boobu xam naa mos liggéeyu ngeen ta taawam ma daal di toog ba guddi ñii di aro ma ne ko la alaaj bala kaay mu ne ko pap maam bala nee na nga dem fekk ko kër ga dem ko fàtte am kon sóoru mu ci njokki job bu xëyoon noo nga jëlal ko xar waaye ci guddi la ñëw nga yëkkati enveloppe jox ko xaalis bu bëri na ko am billaay barke sëñ Tuba xaalis bu bëri la yëkkati na alaaj bala am waaw euh, papa Samba it sóoru mu ci njokki job xaalis ndax dangay dem Fatick papaam na la eh yóbbul papa Samb mi boo demee wutal ko liggéey xam nga moom dafa neex. wutal ko liggéey ma ne ko am na liggéey noonu la mun ne waaw da koy liggéey mën naa dawal oto bu ne ma yóbbu ko ca chauffeur sa muy dawal Fatick ah maam Balla daal di yóbbu ala <laughs> papa <laughs> ñu toog ay diir ñaari weer ñetti weer alaaju Balla ah, papa am di jógee Dakar jàdd Fatick fekk papa Samb di attaayal maam Balla mun ne ko yow maam la jox na la liggéey mu ne ko déedéet papa looy def mu ne damay attaaya mu ne ko jógal. jëlal say bagage <laughs> ataaya indiwu ma ko fi woon de mi ngi ni indiwu ma ko fi woon pour mu di la mu di la at mu di ko ataaya am di jël jël say bagage ñu ñibbi kooku daal di jël bagage yi mu daal di yegg si ma ne ah mu papa Samba dangaa ñëw mu ne ah waaw waaw sa sa day ñëw maam Balla xale bu tudd toog na gongo gongaara papa Samba di ko ataayaal <laughs> barke sëñ Touba maam Balla bi ba ko papa Sama tàggoon ndeysaan Bintu may ne ko ah papa Sama dégg nga ñibbi mu yëkkati xaalis bu bëri mu jàll ne ko am maa joxe liggéey waaye boo demee commencé du commerce commerce boobu moo law ba mu dem Italie. kon boog mbuub jaal yalla seen fan wu gudd. yéen ñëpp nag barke Sëñ Tuubaa yéen ñëpp lañ ko yéene. yal na leen yàlla defal jàmm ngeen yàgg ak seen i rek ñun ñëpp ñu fekk ko tatal ñun daal ñun yéenay suñu doom ñu ngi ci seen gannaaw rek barke Sëñ Tuubaa. waaw bu ñu dundee ñu ngi ci seen gannaaw bu yàlla defee safaan bi it ñu ngi seen gannaaw ma ñëw nag ci faal ngaate moom itam li ma waxoon léegi rek baax na lool waaye amuloon dangar wax dëgg yàlla Cheikh Sylla nag moom itam mu ngi noonu amul benn problème amul Cheikh amul benn problème xamul dara moom xamul dara Cheikh moom xamul dara moom am am di am di fini la waaw mu ngoog loolu nag yàlla koy def waaw baax na kon ba yàlla ñu yàlla defal jàmm yàlla mel ñu teewee ko déwén ak déwén jéeg sant yàlla gërëm nañu ñëpp gërëm nañu ñëpp xale bu ñu kenn xale bu ñu kenn jërë ngeen jëf. sama mag yi dama fi indi waaye kontaan naa ci bàll mi ndax moom lu ma xewle kaw la mu ñëw temps bi maam jaara amee doom boobu dama sama sama crise de diabète bi waaye kon damay ñëw fekk ci ko boobu damaa feebar ba ma jógee màkk ñëw na ma delluwaat màkk mu ñëw sama doom ji gaañu mu ñëw te bu ci ñëw junni la may jox. mënoon na di ñëw di yónnee wala muy téléphone rek waaye du ko def yàlla na la yàlla fa jàmm ba ñu xéewal yu bari te ñu yàgg di ko woo maag ñii ndax sa yaay nag sama xarit la woon wax dëgg yàlla bu daan dem euh, Poroxaan daneen ami kay maa yow maa lay paasal boo demee nga toggal ma léegi laa màggee nii waaye ndi ko may dama daan jóg ci oto bi paasal ma aller retour toggal ma jox ma loo xam ne ñaari ñett noo koy même kii sax ko dëgg yàlla kontaan naa trop yàlla nañ koy fekk ay déwén yu bari te ñun ñëpp ñu gudd fan ànd ak wér bala yàlla nga yàgg ci sa kër gi nga yàgg jiite say rakk ak say ñëpp ñu ngay defal ñii rek nga may defal ah. lu ma xew le ñëw ah, maam jaar mu aussi dama ne woon damay dem far crise de diabète ma daal di toog ah. jërëjëf ko mbub jaal kontaan naa trop yow jërëjëf waaw jërëjëf waaw jërë jëf kàddu yi mate na seere yi fi seere yëpp dégg nañ ko bés ngi nii boo xam ne bés bu mag la kon bu fi yàlla dajalee ci mbaaxam ñu bokk la ko ba ñu sànnante fi ay kàddu sant ak ngërëm yàlla dégg na ko yonent bi dégg na ko sëriñ Tuubaa dégg na ko léegi fi wax yëpp ci jabo gi rek lañ ko wax te sama sëriñ bu baax ba Cheikh Mamadou Bachir bu Poroxaan mu sëñ Moustapha Bachir mu sëñ Bachiru dama ko yóbbul sunu ndab jamono yoo xam ne alaaji ma Balla la nekku fa ma yóbbu ndab la cootan teg ko ñoo ne ko ndabul docteur Balla Mbuub moo ñëw magam ma ko indi bu ñuy wax Duudu Mbuub ñu indi liggéey bi teg ko cootam mu ne jëf day lu muy rëy rëy rëy te dafa ko ci say bokk dafa ko ci liggéey yàlla dañ koy wax dañ ko dañ koy jàppale waaye neen la mu mel ne xale yi li ñu def lépp yëkkatiku la ci barke jëm ci ñoom yal na leen yàlla yëkkati ba ñëpp seen leen ci yiw ak taranga ndax taral nañ ñu ñu war a taral tey jii abbi faati lañ taral ci lu wér a kon yal na leen yàlla taral yal na leen sunu barke bàyyi topp ci barke Cheikhul Khadim yàlla na ñuy ñaan nag sunu borom mooy ñu ne fi teewee ren ci sago yàlla nañ fi teewaat déwén yàlla bu kenn manqué. yàlla bu kenn manqué ci ay cër yàlla bu kenn manqué ci ay jegeñaale asalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakaatu. auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi rahmaani rahiim eh, balaa ma jàng ma sant yàlla sant waa kër gi maa ngi leen di sant bu baax a baax ma itam yàgg naa ci kër gi maa ngi sant yàlla nag sant waajur Balla yi euh, Balla ak rakam ñoom yëpp ñu ngi ma jàppale fii bu baax a baax parce que ñëw naa fële Kaolack nekk seen kër euh, juróom benn at waaw kër mer kenn mosuma wax ne indi nangam ñoo may jox añ ñoo may jox reer ñoo may jox nekk ñoo may jox lépp dara sonalul ma foofu eh, Alaaji la eh, ñëw na sama nekk fekkee foofu matala bu ndaw mu dem jël matala indi ci néeg bi matala boobu ba léegi mu ngi sunu ndekke maa ngi sant yàlla di ko sant bu baax a baax lu ma lu ma defar dafa bari ñoom ak mbokkam yi yépp ak yaay am yi moo tax maa ngi leen di gërëm bu baax a baax képp fu ma nekk itam du ma leen di fàtte soo gisee ma ñëw ma jógee Casamance ñëw fii a ah, ñoom ñoo ñoo takk lu ma defal mun ma leen di fay ngay jégal ma sama wolof bi leerul wante nag dafay faratu rek. parce que nit bu la defalee loo xam ne man loon def fay euh, man def fay il nga wax ci tuuti loolu rek moo tax maa ngi wax tuuti wante nag lu gàttal wax bi rek maa ngi leen di sant bu baax a baax maa ngi leen di gërëm di leen di ñaanal e, ñaan alaji balla itam lu mu ci nekke yàlla yokku ci moom ak rakkaam yi yëpp mag yi itam yu des yi yàlla yeggal leen fii ba ci kanam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 amana rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minuna kullun amana billahi malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min wa qalu samina wa ahdana ghufrana rabbana ilayka al-masir la nafsan illa wusaha laha ma kasabat alayha ma iktasabat rabbana la rabbana wala tahmil alayna isran kama hamaltahu على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا داك لنا به واعف عنا واغفر لنا وانت مولانا اللهم ربنا لا تجب قلوبنا بعد شهادتنا من لدنك انك انت الوهاب اللهم انا اولي بين يدي كل نفس واللمحة والحاجة والدرفة يا ربي اسوات والارض كل شيء جاري كلي اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار بحرمة اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اولي الغادي لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقدار العظيم inna allaha malaikatu yusallu ala nabi ya ayyuha allazina amanu sallu alayhi wa sallama tasliman sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun wa salaamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin salaatu allazi fi kulli sayrin wa fi safar hamani hala mahin mal absa